Omar sa gannaaw euh, jërëjëf ñi ngay nuyu bu baax Red Black artiste rappeur activiste ah mais aussi bokk ci Mimi 2024 euh, ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum à Walfadjri mhm. toute l'équipe c'est vraiment ma famille. parce que ah, léegi ñu def vingt ans de <laughs> di gërëm aussi vraiment le grand Sanjogo. Mhm. nga xam ni tey sénégalais yi bu ñu demee ba découvrir Red Black xam Red Black. la première chance que j'ai eue c'est sur son plateau Ataya waaw invité woon ma xóor dabb <laughs> voilà mais xóor dabb boobu dafa jékki rek falaa jógee et puis affaire yi tàkk c'est vrai donc euh, je vous dois vraiment cette reconnaissance mm-hmm. démb nee naa ko boo ma oowee six heures du matin sax damay ñëw dëgg la mm-hmm. kon saa bu ma soxlaa moom lépp lu may def dama koy bàyyi mm-hmm. nga xam ne il a fait pour moi Walfadjri a énormément fait pour moi donc man je me dis que je suis à la disposition de Walfadjri guddi bëccëg suwaax ngoon donc je suis derrière vous oui. voilà di ñaawlu aussi signal bi ñu coupé ah voilà avant may dugg si signal bi donc may leen ma mu sama soxna hmm. sama njaboot si te Fadia bi ma dëkk di fa yeewoo Parcelles Assainies unité 6 unité cinq nuyu famille Camara unité 6 dugg mbuur sama grande famille nuyu toute la famille Konaté génn mbuur jaar Bargny sama dëkku baay donc di leen nuyu waa Bargny yëpp di nuyu aussi waa Casamance yi nga xam ne ñoom ñoo ma yar ñoo ma adopté Oussouye Mbalakunda donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi sur le plan international côté France côté Montargis Grand assan maa ngi lay siyaar maa ngi nuyu sama gars yi même côté Côte d'Ivoire les Alains maa ngi leen di nuyu côté Congo côté Italie vraiment maa ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal yëpp merci Red Black euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax. di fàttali ni da nga nekk acteur comme ni mu ko waxee ci atum 2011 2012. Euh, ci acteur boo xam ne euh, ci sa wàll joué nga ci lu tax alternance amoon ba Macky Sall toog ci bopp réew mi Abdoulaye Wade dem ah. son bi sax na dem ñu ngi koy fàttaliku. waa pour commencer. sànq danoo am lu ñu waxtaan. mais da nga wax lu am solo. Mhm. comme ni nga nekkee acteur mais noonu la Walfadjri nekkoon acteur. bien sûr en 2012. surtout en 2011. Euh, ci yenn ci ndaje yu opposition bi doon amal. bien sûr euh, dama bëggoon nga dellusiwaat ci loolu balaa may indiwaat question relance bi ñu gën a yaatal manaam acteur bi mu doon ak rôle bi mu joué woon. waaw xam nga en 2012. 2010 pour def un peu genèse bi à partir de 2010 2011 ba 2012. Sur pied, nous avons créé une plateforme qui s'appelle M23. m boo ko mosaane dégg nag moo nekkoon kuréel giy xeex contre un troisième mandat moo nekkoon kuréel giy xeex à ne pas ñu laal ñun suñu constitution suñu slogan moo nekkoon touche pas à ma constitution kuréel googu tudd M23 yu bëri xamuñu kan moo génne turu m ki ko génne c'est lactuelle président de la république tudd Macky Sall Macky moo créer baatu M23 ci biir M23 activité bu ñu mës a am Walfadjri moo ñu may visibilité Walfadjri a toujours fait il a toujours suñu suñu suñu manifestation yu ñu doon def yëpp c'était en direct Sénégal àdduna bi yëpp bu ñu amee information bu ñu amee li nga xamante ne ni moo xam moo xewoon Sénégal jamono yooyu buñ ñu ko xamee c'est grace à Walfadjri amoon na yeneen tele peut-être beneen télé bu nekkoon phase test bugguma tudd fii turam. Mhm. peut-être moom règlement de compte bu mu amoon moo tax dafa dabe commencé aussi teg. Mhm. mais loolu mu doon teg dafa fekk Walfadjri moom moo wane yoon bi. Mhm. aujourd'hui si le président de la République Macky Sall est devenu président de la République. toute la sensibilisation nationale et internationale Walfadjri moom moo ko may opportunité boobu. le mouvement M23 à l'époque bu amee doole dëgg-dëgg c'est grâce à Walfadjri parce que Sénégal lu siw télé yi rajo yi ñoo ko siwoon mhm. te moment boobu euh, Sidi Lamine yàlla na ko yàlla xare aljana mhm. mu nekk un véritable militant mhm. de la démocratie Sénégal bu àggee tey fii ci démocratie ku mel ni Sidi Lamine Niass amu fi Sidi Lamine le rôle qu'il a joué pour la liberté de presse pour sénégalais bi mën a moom boppam pour sénégalais bi mën a wax xalaatam. Mhm. pour Sénégal mën a génn ci maanaam dictature en quelque sorte. Mhm. Sidi Lamine Niass a été le héros moo tax képp kuy sénégalais war ngaa ñaanal Sidi Lamine Niass. à ce que la terre lui soit légère. yàlla xaare ko ci aljana yi léegi pour ma relancer xam nga loolu lu tax ma bëggoon nga dellu si waat ci. Mhm. mooy jamono boobu rol bi wal Walf joué pour Macky Sall en tant que opposant joué ko pour M23 mouvement boo xam ne opposition bi la contre le troisième mandat de Wade. pourtant Wade eggul ci woon coupé signal wala muy tëj Walf Fadjri ay xooxatal nga daan dégg ak ñoom seen ay wax yi nitu politique mais egguñu woon fii i egg tey jii wala ak nguuram. lan moo changé ci diggante bi. xam nga dañ le pouvoir entre 2011 2012 ak 2023. ce qui a changé entre temps. Mm. mooy nga jóge ci opposition nga ñëw ci nguur. amali nga naan le pouvoir rend fou. Mm. et le pouvoir absolu rend absolument fou. actuellement ñi nekk ci nguur gi nag man dama jàpp ni nguur gi da leen a dofloo <laughs> dofloo dans la mesure où ils avaient un contrat. avec le Sénégal xam nga contrat bi mooy lan. mooy contrat wu am ñaari mandat liggéeyal sénégalais yi jaamu soxla sénégalais yi jëlee Sénégal du point A vers le point B ok. en toute liberté en toute transparence tey jii nag ce qui explique cette situation mooy Sénégal dafa am lu muy dund ñu koy nëbb. te ku xam Walfadjri xam ni Walfadjri inventé wul dara. Walfadjri créé wul événement Walfadjri mooy bët ak nopp Sénégal donc réalité bi am Sénégal moom la Walfadjri rek di wane mais ñoom actuellement ils ne veulent pas que les gens comprennent ou connaissent ce qui se passe au Sénégal mm -hmm. c'est une forme de dictature ce qu'ils ont fait à Walfadjri Walfadjri liggéeyam rek lay def Walfadjri lii am ci réew mi lay wane parce que chaque sénégalais a le droit à l'information mhm. actuellement ñu ngi privé suñu information te ñu ngi jaay doole li ñuy def nii du lenn lu dul jaay doole et vouloir aussi rester au pouvoir wala confisquer le pouvoir mhm. alors que non aujourd'hui le Sénégal est une très grande démocratie dans l'Afrique et dans le monde d'ailleurs on est une vitrine ou plutôt ñun ñooy vitrine Afrique donc ce qui est arrivé à Walfadjri jaay doole rek la amul leneen Walfadjri defu fi dara lu bees de 2010 à 2012 lépp manifestation bépp manifestation boo xamante ni opposition bi. Mhm. ñu ngi koy def sénégalais yi ñu ngi koy dund Walfadjri mu ngi ko doon wane rien n'avait changé ok donc Walfadjri tey jii bu ñu demee ba privé ko signalam dañ ko jaay doole et en quelque sorte c'est de l'ingratitude ingratitude bi mooy lan mooy Walfadjri da laa liggéeyal. parce que kenn moom moo bénéficié wu moo capitaliser loolu yëpp il s'appelle le président Macky Sall donc Macky il ne doit même pas songer wala bu déggee ni signalu Walfadjri dañ koo dagg moo war a daal am ñëw Walfadjri jéggalu leen te xam ne loolu warul am su su su su sous son régime en fait. Mm-hmm. loolu ku nekk war na ko mun a def. merci ba mu des Macky Sall. waaw ça. macha allah am na solo jërëjëf euh, kontaan nañ bu baax a baax ci kàddu yi nga. xam ne lu tax ki neex waxtaanal daa fekkee. waaw waaw daa fekkee ñu dañoo fekkee direct ñun dañuy ñëw ci euh, Mimi Touré Mimi bi mu nekk génnee ba naka nii euh, mi ngi wëndeelu waaw fi mu toll nii euh, opposition bi ñii ñi ngi koy caxabal di wax naan bu fi amee ñee ñi ngi naan nii comprendre nga maanaam am na ay jafe-jafe ci opposition bi du moment que nag moom ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko. moom moom defe naa tàllal na ko loxo tawal na ko ne ko euh, da koy soutenir ci xoñoñol yi nga xamante ne bi ñu ngi ko koy xoñoñol mais bi mi mi génneeg léegi yéen yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ak moom est-ce que du toog toog xaw a réccu génn gi nga xam ni moom la génn est-ce que jàppee woon na ni nii la yëf yi war a demee. non mais bien hmm. day toog ba ci yàgg day sant yàlla. day day sant yàlla dans la mesure dëgg mooy njëkk. Hmm. dëkk dëgg muy mujj. Hmm. voilà donc amul opposition lu tax wax nga ne day sant yàlla parce que fi mu toll nii moom bu waxee ñu ne ko bi nga nekkee ci biir daaw. déedéet mais loolu loolu lañ koy wax. waaw mais loolu loolu amul solo xam nga la moo am hmm, solo. moo solo mooy nit ki à chaque fois da ngay xool ngëm-ngëmam da ngay xool maanaam dëggoo Mimi dafa nekk koo xamante ni dafa dëggu te y a des vidéos qui circulent vidéo yi c'est une compilation de vidéos euh, y a y a Aly Ngouille Ndiaye y a hmm, Omar Youm El mhm. même le ministre de la justice mhm. ñuy préciser li ñu jaayoon Sénégal yi par rapport au référendum de 2016 mhm. premier point bi sax mooy Macky moom bu amee benn mandat deuxième mandat bi après day dem ça a été réglé ah. ay góor ñoo toog tënk loolu y avait aussi l'ancien premier ministre bu Boun Boun ah, Abdallah voilà ñooñu ay gor lañ ay doomu gor lañ ji nga Sénégal fii am na ñoo xam ne seen maam yëpp ay gor lañ mënuñu nekk jàmm. ñooñu la ñan gor yi. mooy mooy ñi nga xamante ni nii mooy Mimi Touré par exemple moom mooy mooy tey jii mooy gor boo xamante ni li ma waxoon démb moom la continuer assumer ko ba li ko dal dal ko ci. Hmm. donc ñoom ñëpp dañoo am lu ñu jaayoon sénégalais yi. mooy la limitation des mandats de deux. Mm -hmm. d'ailleurs en avait fait l'objet lor de son de son fameux référendum en de Mm -hmm. ok c'était la limitation des mandats aujourd'hui Mimi Touré amul problème ci opposition bi xam nga ñan la amal problème hmm. mooy dealer yi nekk ci opposition bi dealer yi nekk ci yi dealer yi nekk ci opposition yi mooy ñi nga xamante ni nii hmm. benn baaraam la dugal ci opposition bi seen neuf baaraam ñu jox ko Macky Sall. Ah je veux dire le PDS. Hmm. mais nit munoo mais je l' assume. Ah, je l' assume pleinement. Ah. waa PDS c' est des dealers. PDS c' est des dealers. c' est des malhonnêtes. c' est des gens qui sont des comploteurs c' des conspirateurs. waa PDS. lu tax nga wax loolu. Assemblée nationale dañ joxe exemple qui est hmm. majoritaire à l' Assemblée nationale c' est l' mais quand on parle de l' opposition c' parce que PDS wallo en fait partie mais dès lors que wàllu. n'en fait plus partie donc l'opposition n'est plus majoritaire parce que waa PDS ils sont avec le régime il faut le dire projet bu Macky sàll bëgg mu jàll assemblée nationale c'est comme une à la poste pourquoi parce que wàllu ñoom ñoo nekk ci ginnaaw mm-hmm. dialogue bi ñuy wax ni mais c'est pas Macky qui a organisé c'est une co co-organisation. non Barthélémy nee na moom la. donc moom il fait partie des co-organisateurs. <laughs> yaa ngi comprendre. non moom nee na moom moo ko moom idée. non mais idée la léegi foo teg ni co-organisateur. non bon Barthélémy moom moo réclamé ni. moom moo oote jalo waaw. yaa ngi comprendre ah. waaw te te en plus demul ce qui veut dire que moom moom moom déjà c'est ce qui ce qui veut dire que li muy wax du dëgg quoi yaa ngi mais en réalité PDS ah Benno Bokk Yaakaar je dirais pas Benno Yaakaar parce que ñoom aussi ay marionnette la rek yoo xamante ni Benno Bokk Yaakaar waaw ñoom la mais c'est un bouton automatique la boobu Macky da koy bës rek mu jàll lu mu bëgg lañ koy defal hmm. mais Macky Sall moo organiser dialogue bi avec le PDS pour deal pour Karim ñëwaat et n'oubliez pas la fameuse euh, conspiration de 2019 mooy protocole de Conakry voilà c'est que non y a rien de grave c'est que yow c'est que di ngay waxee nii y a rien de grave c'est que ret yow le protocole de Conakry yow ret yow yow le protocole de Conakry en yow yow en personne yow invité nañ la avant Mimi di génn waaw booba ni nga doon waxee. mais c'est normal que tey jii ni may ah. waxee. mu teex ni ma doon waxee. yow mii kon yow it ay marionnette yow dafa mel ni marionnette. non marionnette mimi nga. man je vais vous non non parce que mimi daa génn rek. soo ko soppi discours non ah da kañ parce ñële da nga a traité ne ay marionnette lañ. tey jii man mënu maa nekk kon marionnette Mimi Touré. ah dans la mesure où Mimi yorul benn pouvoir. non mais lu Mimi wax nga wax. déedéet. c'est ah, pas que non Mimi lu mu wax. laa wax ci kaw mu nekk dëkk. déedéet mais biñ la invité fii boobu Mimi ngi ci biir. non mais bi nga mujjee bi nga ma bi ma mujjee invité. Mimi était déjà sorti. non non am na beneen bu ñu la njëkkoon ah a invité fekk na mu génn. déedéet am na beneen bu ma la njëkkee invité fii nga ñëw ret non man man bi ma nekkee ci mag yi man bi ma nekkee ci mag yi boobu yaay yaay booba ci marionnette yi nga woon saa kon da ngay mën a nangu ne marionnette laa woon ba waaw man bi ma nekkee ci mag yi yëpp da nga maa mettre woon au frigo <laughs> non non non non <laughs> émission bi ñu bi ñu mujjee def fekk na Mimi Touré mu génn man ku laal Mimi Touré laal ma parce que Mimi damaa ànd ak moom ci dëgg Mimi du présidente de la République à l'heure où je vous parle mi amul benn pouvoir pour nommer ma quoi que ce soit. Mhm. mais dama bàyyi nguur. dem ci Mimi bàyyi alal dem ci dëgg. parce que Mimi Touré moo nekk ci dëgg. sama sama sama question mooy euh, le fait ngeen ne da ngeen ànd ak moom si dëgg bi mu génnee. Euh, yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak moom le fait léegi muy jàppante ak loxo ak suman Sonko euh, loolu est-ce que yéen tamit euh, si seen biir. voilà te yow. non man Sonko lu nekk wax naa ko seen biir. <laughs> est-ce seen biir amoon amoo woon leen problème ñuy d'accord bañ soutenance bi nga xamante ne nii mi ngi am ci seen diggante ñoom ñaar. waaw xam nga aussi gis nga kilifa kenn du ko jiitu maanaam lañ naan paaka kenn du ko jiitu. kon nangul li la alaaji wax xam nga. man tey ji munu munu ma ne damay ànd ak Mimi Touré. Mm-hmm. yaa comprendre. Mm-hmm. man ma xam ni vision bi mu jël vision dëgg la. Mm-hmm. xam nga Sénégal dafa am lu ñu jaawaatle léegi. xam nga mooy lan. Mm. dañu jaawaatle adversité ak noonoo. Mm. politique du noonoo. c'est des gens yoo xam ni ah, bokkuñu gis-gis non non moo fi ëpp quoi. yaa mais warul demee noonu. waaw war sa demee noonu. loolu moo tax sax affaire yi man j'ai hypothéqué ma pour Macky Sall man amul lu ma déggul c'est un corrompu c'est un vendu dama am oto dama am kër Macky lan la ma defar. Macky maa ko defar defalu ma tous man mii maa ko defar. ok parce que c'était une conviction engagement la woon. Mhm. aujourd'hui dañoo nekk ci position boo xam dafa délicat. Macky Sall dañ koo jàppalee ba élection desatul ci kanamam. Mhm. Macky jeexal na Macky amatul élection bu nekk ci kanamam parce que Macky Sall tey jii bu ñu ñëwee ba càppaandaw ga mhm. man mhm. sama waay la je bu baaxee sama waaye la Macky Sall bu bonee sama waay la je l'assume mais donc li ma koy ñaan par rapport à sa et pour rebondir toujours par rapport à ta mooy xam nga gis nga nit da am gëm-gëm maki dafa am lu mu ñu jàngal non a un troisième mandat de Wade ne touche pas à notre constitution mhm. le respect du calendrier républicain mhm. aujourd'hui foofu lañ tollox moom te man en tant que xaritam dama koy fàttali rek waaw mais dialogue bi au préalable dafa am lu mu laaj parce que golo bu ne la kaa ñu sànnente xeer dafa fekk mu toog ci xeer da lay gaañ de nee na terme de référence yi ci dialogue lay feeñ non terme référence amul woon dañ ne lépp nañ ñëw waxtaane ko loolu jaay muus la te gis nga Sénégal fii kenn mhm. mënatul jaay muus kenn gis nga kaw kaw yi ñi ñuy oowee kaw kaw hmm. bawol bawol yi hmm. ñoo gën a yeewu sax léegi ci politique ñoo dàq politique ñëpp je vous donne l'exemple de grand Bara hmm. Bara Ndiaye mais Cheikh Bara fan la jàngee politique mais analyse yi muy def kat moo koy def ci biir APR dafa am yàlla moo joxe xam-xam yàlla moo joxe xel tey jii Sénégal kenn mënatul nax kenn Macky Sall bu bëggee ñu dem jaloo en masse na teg troisième mandat bi si suuf bu boobaa man maay dem poñe mi non nee na ko ko ci njekk voilà léegi nag pour ñu ñaan ñaan ko ko ci njekk hmm. pour ñu ñaan ko ko moom ci njekk lenn ci njekk voilà xam nga loolu lan la waaw ci njekk moo tax euh, booy nee nañ ma ma ki nee na daa bëgg deux ans ñu dollil ko deux ans ma ni leen nag deux ans yooyu waaw pour en bu dee moom moo ko wax bu dee Macky Sall moom moo wax pour ñu may ko deux ans mm-hmm. donc nag nañu ko ñaan ci njekk ci njekk nag de. ba pare ñu soog a xalaat. dinañ nangu wala duñ nangu. <laughs> dëgg en fait. gis nga c'est important boo nekkee kilifa da nga war a moytu lu bëri la communication est très importante. Mhm. Mhm. Macky Sall tey da ngay sentir ni kenn waru ko. parce que bu ñu naan entourage am moo baaxul il n'est pas entouré. Hmm? kilifa dina wax ku gedd sa yaay ay kilifa dina wax naan da ngeen ma koy ñaan ci njekk président ci loo xam ne moomoo ko ba koy maye. ba pare di toogaat di xoggaliku naan ci njekk nag. Ah. non mais attends ñun ci nguur lañ nekk wala ci démocratie on est dans une république wala jamonoy Lat Joor lañ nekk mais ça c'est dangereux. mais euh... c'est dangereux président mu may dégg bu dee yaa ngi may dégg. président de la république xoolaatal bu baax sa toogaay parce que fi nga ko teg baaxut. mais ren euh, xam nga sànq saa dafa ñëw daal ni yéen ak yéen da ni yow. Mhm. waa PDS ay mari ay marionnette lañu. non c'est des conspirateurs ay ay ay la euh, lañ Mimi Touré moo leen ko teg parce que moo jël moo musu ko def moo moo am lu mu teg Karim Wade gis nga àdduna waaw ah. des fois manipulation ak information dafa graaw ndax lan Mimi moment bi ñuy tëj Karim Wade fekk na nekkatul ministre de la justice gis nga Mimi bi ñuy commencé di laal le le dossier de Karim Wade mhm. c'était une demande sociale loolu ñun ñun ñëpp fii la ñu fekk mhm. moment bii Mimi Touré di nekk ministre de la justice kan moo nekkoon le premier ministre Abdou Mbaye Abdoul Abdoul Mbaye ah, ah, Abdoul Mbaye était le patron de Mimi Touré Abdoul Mbaye liggéey na ak waa PDS ci élection yi yi ñu génn ah, dëgg la wala du dëgg moment boobu kan moo nekkoon le patron de Abdoul Mbaye c'était Macky Sall waa PDS yëpp ñu ngi ci Macky Sall donc xam nga lan la ndaw Antoine Diome mii. Mhm. moo nekkoon substitut du procureur. voilà ñoom ñu ngi collaborer ak Antoine. Antoine nee nañ moom moo moom moo moom moo moo yoroon dossier bi dossier Karim waa PDS xaritoo nañu ak Antoine Diome. xaritoo nañu ak Abdoul Mbaye xaritoo nañu ak ndeyu mbill gi Macky Sall ba pare bëgg naan noo mimi nii mimi naa. mais tamit Red Black euh, Mimi Touré ngi nii mi ngi xaritoo ak Ousmane Sonko te lu ne waxante nañ ko fi. Mimi Touré ak Ousmane Mimi ko ci lii. gis ngi nii di ko jàppale ba fekk ko Casamance. gis nga gis nga ci campagne bi loolu loolu dafa am ah. benn jàngat buñ ci war a def mm-hmm. Sénégal musul amee campagne bu neexee loolu ci àdduna musul am am. Mimi Touré Ousmane Sonko. mu nekk benn duo boo xamante ne nii vraiment ça faisait. plaisir à tous les Sénégalais donc adversité. Mm. Mimi Touré ak Ousmane Sonko dafa war a nekk symbole à travers toute l'Afrique pour wane ni politique du noonu kii danaan ko non. tata Mimi doo bokk mi génn ne ko tonton xale yi Sonko doo bokk loolu dafa neex en fait ci xol voilà ah. Sonko di way Mimi di fecc mais lii dafa neex Sénégal lii la xam ah, mais pas comme waa APR ni ñu koy defee ah kon Mimi ah. nekkoon APR noonu ak ñoom après ni nii non mosul ñoom loolu du noonoo euh. man maa ngi nii ci émission bi waaw daanaka bokkuñu position tout ce que vous vous yéen li ngeen may moo en fait da ngeen may contrer c'est ça la loi des émissions yaa ngi comprendre mais après ça ñun ñooy toogaat naan café léegi comme euh, Omar Gueye ni ma mayee café sànq loolooy Sénégal mhm. Sénégal benn bopp la encore une fois pour dire que ni régime bi xam nga cuune bi ñu cuune xam nga mooy lan mhm. dañoo créer benn polarisation boo xamante ni bi polarisation mhm. boo farul ci nguur gi rek léegi seen noon nga boo faree ci Sonko léegi noonu nguur gi fekk affaire bi du loolu mais Macky Sall au la de ça Ousmane Sonko est-ce que xam nga ni Macky mooy kilifaam Mimi Touré opposition mais Macky Sall moom mooy seen moom mooy seen kilifa Macky Sall ñi ko ñi ko voteel ak ñi ko voteelul yëpp moom mooy seen kilifa mhm. c'est la personne morale du Sénégal donc moom dafa war a wàcce boppam mhm. te ces conflits là yomb naa régler parce que on est une seule famille on n'est pas des ennemis Ousmane Sonko du ennemi Macky. kon dem nañ ci dialogue bi ñëwal. oui jeex na. Euh, aussi du ennemi Macky peut-être que mënoon nañ gën a bari. mais ñu tàggatoo mm. peut-être message bi ngay def rek par rapport ak yi fi xewoon vingt six personnes dee. waaw tey jii ñu ngi ci enquête ñi naan ay nervi ñoo leen rey ak le ministre de l'intérieur génn euh, peut-être foofu ngay tëjee rek après ñu tàggu. ah affaire bi gàtt naa. trop ah, nguur nguur nag nii la demee moo tax ñu ñaan deux ans. <laughs> ñaan nag est-ce que est-ce que eh, est-ce que mënuñoo ñaan vingt vingt minutes ci njëkk ah ça ça may ñu vingt minutes ci njëkk voilà ah, donc waaw waaw mu ngi nii ah émission bi xam nga liñ naan lu neex du doy mais je suis obligé nag ma yemale ko fi ah, di inviter aussi le président Macky Sall gis nga mm. émission bi neex na trop maa ngi bëgg continuer mais lépp loo gis dafa am dafa am dafa am ay loi uh-huh. dafa am temps donc man maa ngi tàggoo <laughs> di ñaanal yàlla aussi vraiment <laughs> ñi nga xamante ne nii uh-huh. ñàkk nañ ci seen bakken mm-hmm. Mm-hmm. actuellement on est à plus de trente mm-hmm. morts sous Macky sous Wade on parlait de quatorze morts Macky doit faire li nga xamante ne nii mooy wàcce boppam xam ne actuellement lépp lu fi dee il est responsable lépp lu fi dund il est responsable. faluñu kenn moom la ñu fal. te gis nga kilifa kilifa doo dëgër bopp. Mm-hmm. kilifa da ngay wàcc sa bopp. Mm-hmm. kilifa da ngay am yërmande. Mm-hmm. yërmande bi mooy dañ lay tooñ mais bu ñu la tooñee jéemal baale. et qu'il prenne exemple ci Ablaye Wade Ablaye Wade loo ko mën a wax c'est un grand démocrate. donc Macky lui il n'a le droit de faire moins. bu deful plus donc le président man sa xarit je l'assume bokkatuñu gis-gis parce que troisième mandat du dëgg du yoon yow yaa ñu ko jàngaloon non à un troisième mandat mm-hmm. oui au respect du calendrier républicain non à deux ans parce que deux ans yi ñuy dégg bu yeboo nga teg ko si suuf parce que yow yaa ko bañaloon Ablaye Wade merci macha allah bu baax artiste rappeur jaajëf ren activiste bi muy 2024 ah ñu lay gërëm bu baax euh, waaw te ñaan aussi ñëpp bokk ci élection yi ñu dem élection et puis Mimi Touré yaay booy xam nga gagné affaire yi comme d'habitude ñu ngi dégg sax ngay nuyu waa Konaté Kounda maa ngi ciy profité occasion di ci nuyu Awa Konaté chéri Pata Dia sama xarit la sama famille ah, sama xarit la <laughs>